ci ay fan yu néew yu des ci tabaski bi marché caaray ku fi dugg si xam ne ñu ngi koy waajal bu baax fii si parc bi jot nañoo taseel ay jaaykat ñu ngi ñuy xamal ni soble si bëri na waaye njëg li ute nañ clients yi ñu ngi ñëw normal xooloo marché bi actuellement na soble am am na. wante njëg li taxu koo yomb noonu buñ sukkandikoo ci kàddu jaaykat bi. waaw prix moom yokku na moom ndax fan yii moom li ma doon jaay li mu jaay fan am na tuuti saaf na. bu jaaykat ji jàppee ni soble am na clients yi ñoom dañuy gis ni rek marchandise bi bëreegut te njëg li ute na. ah am jàmm rek bëriwul noonu de li fi am daal mu gën a bëri daal pour ñu mën a jënd ñun tamit gën a mën a jaay yokk na yokkuwul rek parce que dafa am njoogaan ñu koy jënd am prix yoo xamante ni seer na ndax li fi xaw a tane daal xaw naa seer moom si de terre moom kilo trois cent lan ma jaaye woon keroog ma teg ko ci bascule wante boobu des na tuuti ma ne ko indil ma soble mu ne ma trois cent cinquante moom la ma ko nar a jaayee suba. ginnaaw gi tabaski bi desee ñaari fan soble si ak pomme de terre bi daanaka bëriwul noonu. ñu am yaakaar ne askan bi duñ ci am ay jafe-jafe.